dañ ma ko dee du benn du ñaari yoon ma koy dégg ñu naan ma góor yàlla bi gën a mag ci réew mi ci lingu ci wàllu asraar ki ci mën jamono ji ki ci toog jamono ji nekkul ci réew mi nekkul ci dëkk bi yépp ca génne ndakaaru génn cees dugg ci àll bi dem diggante kër na ak beneen dëkk sori na lool fekk si nag góor yàlla bi fekk si ko nag ci xalwatu yi nga xamante ni walla ci àll yi nga xamante ni bu ko fekkee rek jàmm bi nga xamante ni ci moom la fas yéene yendu ngir aajoom kooku aajo ba du fanaan jërë ngeen jëf mbokk internet Allô Sénégal surtout Serigne Siri Mokhtar bi laa bëgg wax ki nga xamante ni ku yendu ci say aajo du ci fañaan dem ba ñu naan ko góor yàlla dëgg la donn na ko ci ay maamam waaye jàng na ko ba xam ko tey li mu indi ci faset ci wàllum asraar li nga xamante ni ñu ngi ko ciy toppandoo wala li nga xamante ni mi ngi koy faj ci wàllu asraar bari na kookoy Serigne Fallou Mbacké sëtug sëriñ Sidi Muxtaar bi góor yàlla bi lañu koy woowee ndax góor yàlla yépp ci moom lañuy ñuy rootsee bu guddi xaaje tey nag dama ko fekk si ci àll bi fekk si ko nag ci dëkk bi nga xamante ni tey lu mu fi sañ moo fi am ndax dañ koo xam lool ba pare itam di ko bàyyi xel ndax lu mu leen soxlaal wala lu ñu soxla rek daf koy indi ci dëkk bi wala sax aajo yi nga xamante ni soxla nañu ko daf koy faj tey nag bëgg nañoo waxtaan ak moom ndax dañoo xëy jot information ki nga xamante ni moom mooy Sangu Ndiane génn na àdduna gannaaw ba mu jëlee avance ba waaj bay waajal kombaam am di open press ñaanal nañ ko suñu borom yërëm yërëm ko xaare ko àjjana moom ak wéyjuru Cheikh Cheikh Kouyaté mi nga xamante ni rob nañu ko ba pare. waaye sëriñ bi tey dañoo bëgg a waxtaan ak moom ci kan bi nga xamante ni Sénégal war a fubal ak Cameroun. ñu gis xam-xam bu ñuul gis xam-xamu fétiche tey nag gis nañ sëriñ bi gis nañ beneen facette bi nga xamante ni génn na ko ngir rek xam wan sénégalais que ni xam-xam dukkul fenn. dinañ waxtaan ak moom itam ci élection 2024 yi ndax la mu waxoon dafa tombeek la am mu ni woon lañ ko foogee ak lay am du benn ci élection 2024 yi lan la doon wax ak lu mu ñu doon junj. candidature Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye fay balaa boobu dañu koy bàyyi moom Serigne Fallou. Mbacke góor yàlla mu nuyu mbokki internet yi koy seetaan cheikh bi bismillah ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa di sant suñu yaakaar Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di saar mboolem xalifa général yi nekk ci dëkk yi nekk ci réew mi ak xalifa généraux yi te di leen ñaanal yàlla ñu yàgg fi di jiital ci nuyoo bi ak ñaan gi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak bépp xalif général Tidiane Laayeen Ñaseen bàyyiwuñ kenn ñu ngi ñaanal ñëpp di ñaanal it suñ mbokk yi nekk ci prison yi suñ borom génn leen ci seen xat-xat yeen leen fa dugal bala leen fa dugaloon déet leen fa dugalaat ba dellu seen njaboot ñi nekk ci lal hôpital it ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu fëgg seen bopp ban dellu seen njaboot te yàlla may leen wér te yàlla may ñi nekk ci bitim réew it mm-hmm. duñ leen fàtte ñu ngi leen di ñaanal ket ci nekk ci ay xat-xat yàlla na la suñu borom jàppale ba nga génn ci ndax bëri na ay ndaw yu fi jóge lool nekk fa ne ci ay jafe-jafe mm-hmm. ñu ngi leen di bàyyi xel te ñaan yàlla mu dimbale leen kart na leen ba leen fa yaakaaroon mm-hmm. ñu am fa lu kawe jot bu ñu bisaat ci réew mi di ñaanal réew mi yëpp jàmm jërëjëf daf di slogan bu bees ma indil la ko muy bu doon bu ma doon teg teg naa ci yow ci wàllu asraar waaye tey dama boo xamante ni xam-xamu aada xam-xamu cosaan la nga nekk ci wenn liggéey boo xamante ni tër gàtt def ko ay saam joxe ko nga ni la nga ca gën a soxla mooy làmmiñ bi ak bopp bi ak ya jëm ca yooyu liggéey boobu nga ciy def ba tey nga tuur deret lu mu doon. waaw ah, suñu demee ginnaaw bi la nuyoo di la ziar. Mm-hmm. tey masawu coono yi ndax xam naa ne fi nga ñëw soreen tey ñëw fi yombul ndax yoon wi neexul. Mm-hmm. waaye li nga fi gis nii ci ñetti yëf rek la jàpp maanaam. wax naa leen ko sànq ci bi ma koy def. nee naa leen da di jël mbirum mbàkke mbàkke mi loolu moom du mbirum mbàkke mbàkke mbirum dama indi ji koy mbirum ceddo mi. wane na xam-xam. aajo bi moo ko laaj. waaw aajo ji nit ñi toll ak fi réew mi toll ak fi réew mi jëm. moom moo laaj ngir ñi def loolu moo tax ma xawa a summi mbubbu mbàkke mbàkke mi. teg ko ne xawa indi jikkoy ceddo ji ndax. li ngeen fi gis nii. waaw suñu maam ñoo ko daan def. te it li nga ci gis ni loo yaakaar ne mënuma ko ci te li ma ci jubloo wane mooy ne maanaam ni ma mënee mbir ci alxuraan mën ko ci sunguf bañ nangul la sëñ Tuubaa seede neen nu ko raw laa mënee ci lii ngeen gis ni ndax li ngeen fekk mën naa cee fay coow lu mu rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy mën naa ko cee fay te loo foog ci àddina mënuma ko ci hmm. mën naa ko ci daa fekk na nag réew mi dañoo toll foo xam li ma la wax ne leen xam-xam dëkkul fenn waaye li ngeen fi gis lees doon la lees jàng la. dañ koo jàng ba xam ko. fekk sunu maam doon ko def daa fekk nag suñ Tuubaa moom moo xajul ci kenn. ma waral ñu jëloon mbirum ceddo meeg yooyu tekk waaye foo loo yaakaar ne. Mhm. mënuma ko ci ndax ñu koy dem di ko fan yii ñiy jóge fii ci réew mi. Mhm. dem bitim réew ay ay ay ay ay ind ay feneen feneen di ko fa mhm. wuti ñun fii ci réew mi la ñuy toog. di ko am da ngay jékki-jékki gis ko daan damaa demoon ind damaa nangam. te Sëñ Tuubaa seedal na ne la mu wuti woon ind. giñ naa ci mbaaxu Sëñ Tuubaa bu dikkee fii ñu defal ko mais dama dama daan gis ñu naan saafara nit ki dañ ko koy sang wala mais laataa ngaa tër bëy bi damaa gis nga sang ko saafara dugal ko ci njaq yi sang ko njaq yëpp ci xàmb yi. waaw boo dangeen maa fekk ma yor liggéey jàmbur. waaw ah, dangeen maa fekk ma yor liggéey boo xamante ne day uh-huh. dox ci mbirum fay coow ndax bëy bi boo gisee ñetti melo am. waaw du benn melo. boo gisee daa am benn melo bu ñuul ci digg bi. Uh-huh. am ko ci suufu biir bi. Uh-huh. am ñaari melo yu bokkul ci tànk yi. kon mbir yi nga fekk day fay coow. ba bëy boobu li ma ci man mën naa ci def juróom-ñaari liggéey yoo xam benn bokk ci ak moroom ci. ci benn mala bi benn mala bi mën naa cee dindi cat. Mhm. mën naa cee faj ay rab. mën naa cee fay coow. mën naa cee samp nit. ndax bu may samp nit comme camp gi ngeen di dégg ma di ko def. bëy bi dama ko ci soxla. waaw man mën naa cee xeexit mhm. ndax bëri na ñu ngeen di dégg ñoo xamante ne dañuy wax rek. waaye xam-xam bépp sëriñ bu ko bëgg dangay ngay nangoo sonn dem ci àll bi. di ko ñafe. ba am ko ndax li ngeen di wax des koy donn waaye des ko boo ko donnee ba noppi bala nga ko donn da nga koy jàng ndax yàgg na maa wax ne xasida yi Sëriñ li muy bari bari bari ku sant Mbàkke ba ko doon doon da jàngut amul benn njëriñ kon nit ki lépp lu mu mën a doon bala ngaa toog fi sa maam toogoon wala fi sa baay toogoon wala leneen da ngay dem nga jàngi ko ba mu mokkal ko doogu ñëw toog nga xam ne leneen loo ubbi ak jàpp na lay doon ci waaye li ngeen fi fekk nii mbirum ceddo la moo xam ne nag maa ngi ciy xaw a kii waaye lu ngeen foog ne ko ci rek ñaa ci Cheikh Ahmad Bamba falak folli moom moo ci gaaw falak folli moom moo ci gaaw te li ma leen wax wax naa ko waxaat nag nee leen benn sëriñ ngeen gis ci réew mi. waaw koo xam ne dama wax ne la. Mhm. demal ba gis. waaw doog a ñëw fay. loolu ngay wax ñi nga xamante ñoo jublu ci yow. ñu ngi ci internet bi. benn sëriñ ngeen di gis ci man. te keneen ku ko wedd ñëwal def. wax nit ñëw wax la soxlaa nga ne ko defal ko ba noppi. ne ko saa boo gisee ñëwal ma. ndax léeg-léeg nit ñëw fii du ma la jox saafara du ma la jox dara ay sarax laa lay digal rek na la demal def ko nga dem defal ko sa bopp du ma la jox sax ndax am nit ñoo xamante ne li leen gàllankoor lépp ñàkk a xam seen sarax wala bu nga xamee duñ ko def mu leen gàllankoor waaye li nga fekk fii ma def ko loo foog ne mënuma ko ci da nga ci tegul sa bët gi ñaa ci Sëñ Tuubaa bi ñuy wax nopp da nga ne ma toppama ci àll bi diggante bi tey su ma ci noppee balaa ñoo pare émission bi nga dégg boroom woote nopp dafa mel ni li nga koy def ci digg àll bi nga koy def liggéey ko fa balaa ngaa ñibbi sa kër résultat am waaw xam nga nopp moom nit ñi dañoo jàpp ne dafa jafe waaye dama wax nit ki lépp loo xas man jafewul maanaam doomu aadama lépp lu mu xas man rek jafeytul ndax li ngay gis ma di ko dagg ci garab yi ak di ko suul lenn li ci ci maanaam ci taatu ngeer laa ko def lenn li ci ñaari new yu jàkkaarloo ci lan ci lan ko def mhm. boo xoolee da nga gis na may maanaam may jël béjjën bi di di di gàjj di mel ni kuy gàjj waaw di gas waaw li may def foofu maanaam la fekk garab gi demul ba daanu hmm? maanaam moo xam ku góor ki moo xam ku jigéen ki ñoom ñaari ñaari garab yooyu ñu ngi jàkkaarloo la fekk ñu ngi jàkkaarloo la fekk ñaari garab ñu ngi jàkkaarloo ñoom ñaar ci àddina dara mën leen tàqale lenn ci àddina moo xam muy tëdd moo xam muy nelaw amul ci àddina benn sëriñ bu leen mën a tàqale dara jee Sëriñ Tuubaa ab dama ne leen ñaan ku koy def da ngay dem nga futteeku nga dugg ci àll bi mm-hmm. maanaam ñi mee ay garab ñi mee gëstu mm-hmm. ñi mee xam waaye doo toog fi nga toog rek climatiseur upp la lu ne upp la ñu laal ko mm-hmm. waaye li ma la wax nii ni nga fekkee ñaari garab yi jàkkaaroo leen ma gase ko ci ngeer sullee ko ci taata ngeer gi yóbbu ko muy ma ci diggante ñaari garab ma teg ko fi li may def ci ñaari garab yooyu laa ko def ndax am na loo xam ne bi ma ko jël bëgguma kenn kenn filmé ko mhm. ndax xam-xam la tey tamit xam-xam moom kenn du ci internet bi di ko jàng waaye nopp moom la ma waxoon daa wax ren laay waxaat bëri na sëriñ si jël avance jàmbur ñëw fii ma leen koy defaral kon nopp moom du ma ci xëy nag suñ boroom moom fi mu denc xam-xamam mhm. dafa ruqee mais àll bi dama naan sax miin nga ko miin goo xamante ni comme sa rëddu baaraami la da ci yàgg liggéey wala am na liggéey yoo xam ne fii rek nga koy defee ci gàncax yi wala ci gas suul wala sax ci jat am na yoo xamante ne dangay ngay jat daaj bàyyi dem sa yoon. waa xam nga àll bi ñun ay nit àllal. maanaam ñun diggante Cilmaxa Kër Ngane gi. Hmm. ci leen juddoo moom lañ xam. ndax ko xamoon Cheikh Sidi nga xam ne góor yàlla la woon. Hmm. maanaam moom foo ko fekk mu ngi ci àll bi ci diggante bay ak jaamu yàlla ak dundaw ñax xam na fi nekk woon. Oh. moom maanaam ku amul métier. Mhm. dinga nga jéppee des na la jéppi. ma dugg foofu di wax sëriñ si ñenn ci ñun ñii ne leen. waaw ñaan du métier. nit day am métier ñaan suñ mag ñu ko daan def te mënoon ko lool. Mhm. foo leen ma sa fekk dañ daan jàngale di bay di dunde képp ku ñëw fekk leen fan nekk ñu faj sa aajo waaye dafa bëri loo xamante ne kenn du mënu ko defe ci tax àll bi ni ma ni nga ko waxee ni ma miine sama loxo yi laa miine àll bi ndax man nitu àll la oh. man amul benn bis bu may xëy boo xam ne saa bu ma xëyee ndax li nit ñi wuti ci àll bi. Mhm. suñ mag ñi ci àll bi lan daan dugg garab goo fi gis fii li tàmbalee sump rat dugg dugóor reeni caxat loo fi indi lu nekk mën naa laa wax ne lii lii lañ ciy liggéey njëriñ loo fi indi laa la wax ma mën la ci wax ne ne lii boo demee ci ay alxuraan sàngam ak sàngam boo ko jaxasee jox boole koog lii wala boo demee ci biir àll bi boo jàppee bar wala nga jàpp mbëtt wala leneen ne nag leen boo ko jaxasee lu ci nekk mën naa ci indi xam-xamu alxuraan mm-hmm. indi xam-xam bu ñuul ndax man ci àll bi laa dëkk samay maam yëpp ci la àll bi lan dëkk ndax man ko xam góor gi Matar si la boo duggoon ci tund wi laaj ko kenn du ko kenn du ko nattable waaye teewul nag lu ci nekk tooguma rek na sama maam ko yoroon daa def ñu doomi soxna yëpp def dem jàngi ñëw fexe xam waaye dañ fay fekk itam ndono loo xamante ni da koo donn loo xam ne fonk nga ko lool muy ci wàllum xam boo xamante ni da nga koo defar ko ba mu teg fekk naa fi itam fas goo xamante ni boobu ba léegi réew mi duñ gisee sa kanam gi rek dañuy jëm ci borom fas wi laataa maa ñëw ci càngat li ngay joxe alxamis bu ne. waaw xam nga lii nga fi fekk boo ko xoolee danga xam ne yëfi mag la. waaw mbirum mag la boo ko xoolee nii di nga xam ne gone gone moomu ko. maanaam ay bagages yu mag doo nga ci nekk. Mhm. waaw lii nag maa ngi ko. te ndono rek la a doon ndeysaan la moom ci góor gi Matar si la la bàyyi ko woon. maanaam mbirum ndono la moo xamante ne maanaam ñun sax bëriwul ñu ko jëfandikoo ndax mag ñi léeg-léeg ñu yor loo xamante ne. fii jamono toll kenn ñimi koo laal waaw waaye giñ ñaa ci Sëñ Tuubaa walis yi ngay gis ni mi tuuti tuuti tuutaayam bii bëri nañu ne ci réew mi ñoo xamante ne ñi ngi fi ñëw de saa bu ñu ko gisee ñi mu génn rek mhm. den xam ne li li may sant nar naa ko ndax fii moom li ma leen wax ne leen boo gisee ne bari wut lu ma fi indi ndax ñi may sangat alxames sax lu ci ëpp du ma leen sange fii déedéet ñu ci baree bari du ma leen sange fii ndax yéen gis ngeen li ngeen di daj pour ñëw fii ñu ci baree baree bari càngatu alxames bi ñu am chance xanaa duñ ñëw fii ñu baree baree bari du leen indi fii ñu ci bari baree baree bari dama leen indi fii ba ci teen bi ngeen di gis bépp wax booy bañ mu jëm kaw bu ma ko xasee def ci biir teen wax def li ma ci def wax jooy bañ mu jëm kaw du jëm kaw déedéet wàllum fas gi ngay wax nag fas gi moom war na war na réew mi waaw moonoom moom ci wàllum néew kàttan bu fekkee nit ki judduwaalew ko ci lay dox mm-hmm. waaw moom ay nit isin nan ko isin waat ko mm-hmm. te man giij naa ci Sëñ Tuubaa man li may wax nit ñëpp laay wax mooy di mbirum xaalis ndax man damay liggéey mm-hmm. defuma ñaan métier damaa am meneen métier moo may liggéey daa fekkee nit ki nag di nga dema dema dem ba am mbir moo xam da nga ko doon ba mujj la sonal waaye diggante ñaan maanaam wàllum tële giñ naa ci Sëñ Tuubaa ak wàllum kayit mm-hmm. ak maanaam yëkkati ci entreprise bu nit nekk wala wala falu barki Cheikh Ahmadou Bamba ñi ngeen di gis ci réew mi ñëpp du ma seen morom mook wàllum seet wallaahi wa laa la wax bëri na seet moom bëri na takkal nañ la ciy garab waaw bëri na sëriñ soo koy gis si laa maanaam nit ñi nekkatul ñoom ay seetloo ñoom sëriñ si leen seetloo sëriñ si dima seetloo man daanaka ay client sëriñ la ëppale ci ci ay client mm-hmm. quoi kon day mel ne ci damay wax ne ñoom li ñu li ñuy jàngi maanaam li ñuy dem def lu ji ko man maa ko defal sama bopp man du ma def maa defal sama bopp bëri na yoo xam ne audio leen di envoyé say sa baat lay doon bëri na ñoo xamante ne man maa jox leen ñu yónnee dama ne la ñoom li ëpp ci nit ñi li ñuy deflu man fii laa ko defee te man dégg génn ma diggante Kajoor ak Bawol bi xam-xam bu nit soxla mi ngi ci diggante Kajoor ak Bawol gi génn ñu ko ajowul dem si yéen donte ne nag dem nañ wër xam lan moo xew ci yeneen réew yi waaye boo demee ba xam loola ci nga xam ne fi nga dëkk xam-xam pii nga ci réew mi daa fekk na nag jamono day dem dema dema dem ba ñi ñenn ñi dañuy yóbbaale ñi ci des waaye bu ñëpp bokkoon am mhm. am ñu génn seen cër wàllum néew kattan am na ñoo xamante ni mënuñoo takk te da nga leen a sóoraale bu baax boole koog butéel bi nga xamante ni tey nee nga boole nag néew kattan ak feebar bi nga xamante ni mën na koo sabab muy wàllu ndoxum siti kooku mos a jox tey sëñ bi ba mu dikkee keneen da indaale. waaw bitel bi moom mooy bitel bii ngeen di gis nii bitel bii la. maanaam moom li muy ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw li mu mën a li muy mën a liggéey dafa bari. waaw moom képp koo xam ne judduwaale woon néew kartan mm-hmm. judduwaale woo ko ndax li may wax nag na leer. ndax man damay wax ne man xaalis bàyyi ma fenn. Mm-hmm. ndax li may jëflante mooy damay bëgg tey jii bu ma xëyoon faatu. ku ma dégg ci àddina bi daan ne ah mas noonu jëflante teraanga maanaam man noonu laay bëgg di jëflanteeg nit ñi damay bëgg maanaam lépp lu may jëflanteeg nit mhm. kóllëre gi gën a sàmm ko alal ji waaw kon lu mën a xew rek mhm. biteel bii ngeen gis waaw ci néew kàttan lay dox moom day faj ndoxum siti ak ndigg lu metti mhm. ak kàttan maanaam kaas yut la ci nit di jël bu la neexee mën nga koo booleeg lem une heure avant lu mu gàtt gàtt gàtt damay dégg nit ñi ay say ñaari waxtu say ñaari waxtu amul fenn dañuy wax rek amul fenn sëñ bi nit ku normal du sëy ñaari waxtu. du sëy trois heures de temps sax dégg naa ko. wax la sëñ bi nit ku sax ëpp na ci sëy waaye lii dama ne leen képp ku nit ku ko jël amul lu amul luy màndal ndax dañ koo dugal ci ay mbir ndax man lépp lu ma jox doomu aadama mu ko dugal ci biiram. Mhm. dama ko yóbbu ñu saytu ko. ndax mhm. ay nit yàgg na ma koo laaj ndax nit ki lépp lu muy naan. Mhm. war ngaa dem seetlu ko ndax biir lu ci xas dugg du génn. léegi nag lii ne képp ku ko jël day faj ndoxum siti ñetti mbir rek lay faj day faj ndoxum siti day faj néew kàttan bu fekkee judduwaale woo ko waaw day feji maanaam nit ki awraam bu gàttee da koy delloo ndax loolu ay rab dina ko def bu fekkee ay rab sababut loolu da koy faj dama bëggoon nag ñu dem ci actualité waaye faaw ma laal benn question mooy dama fee fekk mbiri cosaan gannaaw alxuraan beeg yooyu daa nga yor ko capp ci xalima di bind ñu bëri big feutre yàq na leen waaye fii ba ma fi dikkee wér wàllum cosaan rek laay gis gannaaw yu xonq yeek yu ñuul yeeg yu weexi waaw loolu moom xam nga li may la sànq ñun dañuy wax ne képp ku bàyyi mm-hmm. sa yëfi bopp ci yëfi keneen nga jëm waaw te ñun lii leen xam maanaam fi ngeen ñu fekk mm-hmm. ci diggante jàng ak bay mm-hmm. ak maanaam xool la fi sunu maam yi bàyyi woon ñu fogg ko am na xam-xam yoo xam ne dañ naan balaa daagee wow aajo bi faju waaw moo waral lu ci bare bari ñun daal ni jëfandikoo lu ci bare mooy xam-xamu jooni ndax daa yi nga gis boo ko xoolee bari na ci loo xamante ne maanaam ci wàllum noob lay dox maanaam am na ci loo xamante ne. Mhm. lenn le deret yi yeew la ni jël. waaw yeew. waaw jaxase ko moom. Mhm. boole ko dereti kàkkatar ak xubbitum jaan moom am daa yoo xam moo leen koy jambi maanaam loolu ci wàllum noob. Mhm. moo ci gën a gaaw. ak ay façon yu bari loo fii loo fi gis rek fi ngir ne dañuy teg déedéet. fii loo fi gis laa la wax. lem sax dañ koy bindee. waaw loo fi gis laa lem maanaam loolu li muy ci li muy dox. mooy rataxal ab diggante wala tey ci misaal boo demoon di wuti nit ci dara lu mel ne dem bëgg ñu jël la liggéey wala tey ci misaal nga amoon entreprise am ay jafe-jafe bu ñu jëlee turu entreprise boole ko jël daajoo ji boole ko lem ji bind ci mm-hmm. am na nun koy defee ci gémmiñu mala mala bi nag du ko wax waaw waaw buñ ko ci defee rendi ko mm-hmm. bu soobee suñ ci waa entreprise boobu moom foo mën a ne ci àddina den ko dégg samp laa la wax jëmmi samp am naa tam bëgg mooy yóbbu fa nit ndax li ngeen jot a gis fii nii loolu dara barki sëñ Tuubaa loolu. tey dañ cee tombé bés bi rek. tombé rek barki Cheikh Ahmadou Bamba fi may samp nit ñi yore entreprise tey boo fa demoon ni ñu leen di samp nii lu mu gàtt gàtt gàtt kat di nga fekk sans sans ay mbir comme ni ñu leen sampee ay mbir yoo ne dañ leen di samp. waaw ay mbir yoo xam ne dañ leen di dañ leen di samp. waaw kon lu ci mën a xew rek. ñun moom aada ak cosaan la ñuy topp. ndax ci lépp nekk. Mm-hmm. te ñun fi lañ ko fekk. waaye nag teguñu ko ngir ne dañoo topp aada ak cosaan lépp lu ñu yëkkati. Mm-hmm. xam-xam bu wóor a wóor a lañ ci am ba tax njëkkati ko. tey moom dama la koy ñaan ndax question bi bu la bettee xëy na nga tontu ci kenn mënu la cee loo muy wàllum jaaro ndax résultat yi nee nga ñoom ngay bàyyi ñu def ñu waxal seen bopp wàllum jaaro bëgg naa ñu jàll ci doog a dem ci actualité ndax piège la dama ko indaale nag balaa maa ñëw. waaw xam nga wàllum jaaro mooy loo xamante ne moog wàllum fas gi ngeen di wax dama cee wax ba dama cee wax ba wax ci ba ba ba xaw ci àgg fenn fi. ndax mbir la moo xam ne nit ñoo ko waxal seen bopp man toogutuma di ko wax ndax man ñi ma fii ñëw ñëpp chaque hmm. alxemes di fi ñëw ñuy jëflanteeg ñoom jaaro daa dama dema dem ba toll foo xamante ne hmm. maam nit ñi àggatuñ fu ñu takkee téere ndax am na ñoo xamante ne boo jëloon téere bi gën a baax ci àdduna jox ñu takk ko du leen jëriñ dara waaw dafa am nit ñoo xamante ne seen lépp ci jaaro lay dox hmm. ndax jaara yi dafa am couleur am waxtu wuñ koy liggéey am per nit ku ci nekk ak sa per nit ku ci nekk ak ak maanaam ak waxtu wi ñu la war a liggéeyal jaaro léegi nag daanaka mbirum jaara moom daanaka moom visiteur soriw nit ñëpp ah. dana yori jaaro fu waaye tourné jaay jaaro waaye ah. mbir la moo xamante ne xam nga sëñ bi xam-xam bu ñu demee dema dema dema dem ba nit ñi commencé ko commercialiser rek mhm. jafe-jafe am na mooy la ma waxoon benn nit ne ko génn ci internet bi di wax tekkiwul ne nit ki li muy def daa siiwu loolu daa bëgg a man ndax fii nii man bu am na ñoo xam ne nu xoolee sama kanam ci kilifay réew mii ah. ba ci ki yor réew mi wax mhm. naa ko bu dul benn yoon du ñaari yoon moom bu ma gisee xam na ma ndax ku ñuy wax Sampierre moo ñu boole woon eh, eh. ba moo koy wax benn baat laa ko xam man du ma ànd ak ragal. waaw kon lu mën a xew. Mm-hmm. mbirum lu ngeen fi gis mbirum xam-xam. waaw doonul mbir moo xam ni ñi ku génn ñu ne diw boo xamoon nangam du génn gis nga yonente bi. ba muy taxaw ci kaw bar di xutba ajjuma. Mm-hmm. jàllale communication moo taxoon yonente bi di ko def. alxuraan jii li muy bari bari bari bari bari communication suñ borom bi. Mm-hmm. lay jàllale. moonte yàlla ba ko neexoon wax ñëpp dégg. waaye ba mu demee ba ci biir daa wax yéen ñi gëm. ba mu yàgg daa wax nit ñi ba mu yàgg mu ne yéen ñi gëm ba mu yàgg mu di ko xàjjante di ko xàjjante di ko xàjjantale mm-hmm. saytaane jël ci lim moom moomu jël lim moom kon lu mën a xew communication moom xëy na ña ko yonente bi daan defee ak ñun koy defee ñun moo wuute ndax yonente bi wax ji mu fi wax xeex bi mu fi xeex lépp jàll communication dong la woon waaw Coupe d'Afrique la ñu jëm Sénégal deuxième match am Cameroun la am gars yi ne Cameroun lu xonq du ko gañe lu ñuul du ko gañe xam-xam bu weex te ba ma ñëwee fekk naa fi xaatimi fekk naa fi yu ñu gas di suul fekk naa fi yu ñu wékk fekk naa fi yoo xamante ni sax dañ koy liggéey ëf mu naaw ban xam-xam moo mën a gañe Cameroun ak senegal nu mu mën a def ba gañe Cameroun. waaw foofu bala ma fee dugg dinaa xaw a leeral tuuti ay mbir. waaw gis nga sëñ bi bàyyi suñu caaxaan yi. waa ngeen surtout ñun ñi ñuy woowee ay sëriñ. gis nga nan bàyyi bu élection jotee. waaw sax élection sax garaawul ndax élection kenn ku ñu nekk dañ xëcc jëmale sa côté. waaye nan bàyyi maanaam bu futbal jotee. Mhm. kenn ku nekk génn mel na ñun ñi réylu kaala. di kàcc rek. ñu ci ëpp ci ñoom dañuy kàcc gis nga am réew boo ci bokkee. Mhm. te jàpp na la koy doxal ca nga war a bokk. Mhm. waroo toog tàll ki yi naan nan ma seet si. waaw ndax réew moo xam bu tàkkee tey bu ñu jëloon ko bi fu waaye nekk. te maxi football ñor la di nga taxaw yuuxu mhm. bu ne Sénégal foo génn daana man Sénégal laa dëkk léegi noo mën a dëkkee ci réew mi ba noppi saa bu football amee sëñ bi nit ñëpp génn sëriñ su ne génn na nan ma woow buñ ma woowu nangam nangam oh. yow li ngay def boo ko ma nee man aajowul kenn di ma woo bu ma benn ministre woo soxlawu ko ci réew mi laa bokk lépp lu ma war dinaa ko def te soxlawul kenn di ma seet si ndax Sénégal bu demee fenn bu amee ñëpp am su ko ñàkkee ñun ñëpp ko ñàkk yàlla na ko yàlla may waaye damaa bëgg seen kàcc yi ñuy kàcc di wër naan ay ni ma diw woo bëri na ci ñoo xam ne boo leen woowoon dara foo leen mën a yóbbu lekk ak nelaw lan fa nekk nan bàyyi suñu caaxaan am réew boo ci nekkee tan jàpp na ci réew ma nga bokk lépp loo xamante ne xam nga Sénégal équipe nationale dem di wuti ndam ñun ñëpp a dem kon kenn ku ci nekk la nga man bu dee tour deret bu ko sa doole aajee def ko soo ko mënul yorul course di ñaan te xam ne loolu mbir la moo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye nan bàyyi saa bu football amee wala leneen am kenn ku ne génn naan mbari mi mooy daan kee mooy daan kee mooy daan déedéet hmm. man ay mbër may seet si fii nii waxoon naa ko jamono yi ci ginnaaw am mbër mi fi ñoom mu ne ko boo àggee boo daanul hmm. ma bàyyi ñaan mu ne ma sëñ bi takk ak sangu ma ne ko man li may jox nit lu muy sangoo lay doon waaye du loolu muy takk ñi may ñaanal ñëpp wóor leen amu ci ku fii ñëw ma jox la dara na la boo demee takk ko amul barki Cheikh Ahmadou Bamba amul kuy ñëw li ma wax ci internet laa ko wax. amul ku ma ma seet sama jox la dara na la xanaa fasum ndigg. waaw fasum ndigg laay jox nit na ko boo demee takk wala jaaro. waaye bu weesoo ñaar yii lu soxla rëy rëy rëy rëy rëy rëy. doo ko takk ñetti mbir laa ko def ab sarax lay doon. Mm-hmm. wala lu ma lay sange. waaye doonut nit lu ma naan la takkal lii. ba fi gën a mën a gañeel senegal match bi contre Cameroun. waaw wi bi nu ko Sénégal mën a gañeel ndax dina am ndam. mooy li ngeen fi fekk moom ndax man damay wax ne ay nit tamit duñ toog. jël seen temps bépp def ko ci mbir mi ngi mel li may wax mbërum làmb ñëw seet si la nga génn daane diw devant seet si mel ne diw mi la seet si dalaa jomb waaw man bu ma nit seet see su ma laajee ñëwoon na fi laay wax du ma ne diw ma seet si ndax moom xam na moom mi liggéeylu man bu mu ne liggéeyloo xam na su ma waxee dëgg moom xam na su ma waxee loolu dëgg moom xam na hmm. kon lu mën a xew senegal dina gañe Cameroun loolu du ma ci wax ndax li tax du ma ci wax mooy ne tey bu ma ne woon Sénégal day gañe am na ñoo waaw am na ñoo xamante ne dina leen neex mais tey bu ma gisoon safaan ba wax ko am na ñoo xam ne du leen neex te ña dem ña dem muy coupe du Afrique ba ñu ci dem doon ay joueur dëkk fii ci réew mi mmh. am naa ci ay xarit ñoo xam dañuy ñëw fii doon sama ay wëllëre ñoo xamante ne bu dul lenn it dañuy ŋàbb seen i tànk di ñëw fii ci man di ma seet si mmh. kon lu mu ci mën a doon dama leen di ñaanal yàlla li gën ci ñoom yàlla na ko suñu boroom def tey bu ma sañoon ñoom ñu gañee mmh. waaw lépp dees na ko def te du ko wane ci télé. du ma ko wax kenn dama koy def ngir yàlla ak samay waay ya fa nekk da ca football dama koy defit ngir ne ci réew mi laa bokk. waaw ña dem. lan doon def man bu ma ko mënoon ñay dem ca laay bokk. Oh. waaw. kon nit ki lu ci mën xew daal. am naa cee soppe am naa ci am di jàmm li ma leen di ñaanal mooy la ñuy wuti. Hmm. yàlla na ko suñu borom teg ci seen loxo tam gën ci ñoom. tam gën ci réew mi waaw. leneen lu ñuy waxtaanee tamit doog tëj. muy élection 2024 yi am na ñu fi ñëw am na ñu fi teg seen tànk am na ñu fi yónnee am na ñu fi yabal se waaye élection 2024 yi yaa nga fa nga fa nga nekkoon ba léegi la nga waxoon jógoo ci. waaw xam nga élection yi 2024 yi ñu ngi mel ne ba ngóor si di falu Macky Sall. Hmm. bi mu ñëwee ñu boole ñu dama ko waxoon ne ko man duma ànd ak ragal. waaw moom xam na man xam naa ba mu dellusiwaatee bëgg leneen man am Sénégal laa fi fan fare. tey tamit ñun ñëpp jàmm leen ñaan ci réew mi. dama leen waxoon na leen ban ne Sonko day nekk candidat damaa taxawoon fii na leen. waaw ka ko fook ak ki mi doon du doon benn. Hmm. diggante bu gàtt lañ ci teg ñi ñi fal ki ci des nu mu tuuti. Basirou Diomaye Faye hmm. te la ma leen waxoon démb ak bërki démb ci laa nekk. élection yi di ngeen ci dégg coow lu rëy. Hmm? barki sëñ Tuubaa di ngeen ci dégg coow lu rëy rëy beneen bi it. di ngeen ci dégg kilifa gu wàcc. kilifa lan kilifa gu wàcc ngi jaare foofu di wax képp koo xam yor nga njaboot. Mm-hmm. goo xam ne dañoo jàpp juróom benn at. jëm suuf. na ci góor góorgóorlu ci tee leen. xam ne waxaguma koon woon waaye yéen gis ne mu ngi commencé di def ay jeexit. ndax yéen a ngi dégg ñaan ay xale yi def nañ lii def nañ lii. Mm-hmm. bu ngeen góorgóorluwul seen doom yi. Mm-hmm. état bi jóg ci boppam li kanam la jëm. barke Sëñ Tuubaa di ngeen fi dégg ay xale yu bare bari yu jëpp juróomi at jëm suuf juróom benn at jëm suuf. di fi dégg ñu bari ñu réer. jigéen ñi ak góor ñi ak boroom kër yi. nan farlu ci seen doom yi. la ca topp nag mooy ne. Mm-hmm. man la ma waxoon laay wax. ànduma kenn ndax Sonko. am naa fa ak njaboot waa këram dana ñëw seet si ma. Macky na ma moom ak waa këram dañ daan ñëw di ma seet mm-hmm. man la ma wax mooy képp ku ñëw ci man. li ma la sant nga man ko. Mm-hmm. man soxla ma xaalis. waaw man li ma lay sant boo dikkee bu ma la ko waxee yow ko xam. ndax man lu ma nit defal la ma waxoon dem ak barki démb lépp lu ma nit defal fekk na suñu Tuubaa defal ma ko ba pare oh. waaw ndax euh, wax ne la si Muudu Moussa waxoon jërutul waaj mm-hmm. ndax jekk ngeen ba noppi mm-hmm. kon lu ma nit defal fekk na suñu Tuubaa defal ma ko wax naa ne leen ñaan du métier man am naa leen métier na kay mm-hmm. dama dama doon dem ci kaw yoon mu dab ma rek ma jublu ci ndax noonu la waaw dama bëggoon nga ñaanal Sangu Ndiane mi nga xamante ni jël na avance war a def open press suñu borom def li gën ci moom ñu ñaanal ko yàlla nga ñaanal ko suñu borom ndax xam nañ la nitu yàlla nga xam nañ la ci ñaan suñu borom may la nga ñaanal ko rek te nga wax ci diggante nit ak programme am lu programme suñu borom teggi teg programme. waaw xam nga ñun ñoo tàmm jékki-jékki rek dugg ci mbir. ginnaaw bi loolu jàllee. moom Sa Ngoundiane maa ngi koy ñaanal yàlla. yàlla yërëm ko. Mm-hmm. te xaare ko àjjana. te suñu borom jéggal ko bépp ñaawteefu bu mu mës a def fii ci àddina te ma ciy jaare di wax na muy man mii toog di wax ak yow di keneen di keneen di keneen kenn ku ci ne ci ñun di nga am bis boo xamante den la takk ba nga jekk ñu dugale ci biir bàmmeel waaw mm-hmm. ah, bis boobu nag képp ci ñun koo xamante doo ko xalaat lépp lu la neex ci àddina mën nga ko def mm-hmm. ña dem yambar yóbbuwu leen ñi fi nekk jàmbar bàyyiwu leen fi kenn ku ci nekk ci ñun la la war nekk ci te ngay wax dëgg yàlla tax mm-hmm. ñun nag ñoo tàmm dugg ci mbir moo xamante duñ ko seet ndax mag ñi tukki sax bu ñu ko daan def dañ ko daan seet man sama buntu kër gi bala ma ko génn dinaa xool bu ma génn ci mbedd mi lu may dajal ndax suñu borom dafa nëbb ay mbiram doomu aadama ci kumpa rek la nekk nit ñëpp ci kumpa la nekk la sëñ Sam doon wax naan nit ñëpp nelaw waaye buñ dee yeew mm-hmm. waaw saako nag ñu ngi koy ñaanal yërmande yàlla ju sax dàkk ci kawam ak ak te ñim fi bàyyi it suñu borom teg ci ñoom loxo ndax yàlla rek moo mën a wuutu doomu aadama mm-hmm. ci moom beneen bi doomu aadama dafa bëri lu ko composé dañuy dafa bari lu ko tënk ci ay xaala yoo xam ne moom xamu ko ndax nit cat dina dem ba àgg ci nit jekki-jekki feebar te du xam nga xam mën naa dem hôpital fu ne ñaan ay rab la ay nangam te cat mag ñi dana wax ne bu rëyut semal te itam nit dina dugg ci mbir moo xam ne gënul ci moom moo waral nit ki lépp lu muy dugg ci àddina da ko war a seetlu ndax nit cat dina tëj doomu aadama ba maanaam lépp loo jublu mu yàqu cat dina topp nit ba daanaka lépp loola dal maam bu sa tànk dee métti bu sa tànk tane sa bopp jël. Oh. cat dina topp nit ba ci biir bàmmeel mag ñi dañ ko daan wax. kon cat moom bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw te li ëpp ci doomu aadama yi dox. li leen gën a gàllankoor seen àdduna mooy cat. te ndax léegi nit ñëpp ak ñu ne dana ñemee réseaux sociaux yi te duñ sangu duñ takk duñ naan. kon lu mën a xew nit ki war nay góorgóorlu ci musu ci cat ak lépp. lu koy lu koy lu lu ko yàqal. góor yàlla bi mu doon fajkatu aajo bi mu doon yéeme gi mu ci yéemee tax ñu taftal ci góor yàlla gannaaw bañ ko xamee ci sëriñ Fallou Mbakke sëtuk sëriñ Sidi Mokhtar bi amati na ndam wala réew mi amati ndam gannaaw ba ñu ko gisee sori na te jafe naa gis jafe naa ñëw fa mu ne moo tax Allô Sénégal ci lu mu sori sori. lu mu métti métti dañuy déplacé wu xam ni njariñ mi ngi fii te askan wee ñu sas ni fu njariñ ne dem leen jëli ko tey nag métti na waaye fii la ñu yendu tey fas yéene waxtaan ak moom sëñ bi lan ngay tàggatoo soppe yi la doon bàyyi xel ci Allô Sénégal. waaw vraiment tàggatoo maa ngi nuyu waa réew mi te di leen gërëm waaye am na loo xam yàgg naa ko wax. ndax ñi ma ko waxal jote wuñ fi ñu moo jotee. muy ne. waaw suñu ñun ñi ñu wooyee ay sëriñ ñi ñaan lan bàyyi suñu tappale yi. Mhm. ndax nit ñi sonn nañ lool. gis nga fukki junni nit maanaam téeméeri nit ñu ñëw ci man. ci lekk seen alal. téeméeri nit ñu ñëw dinañ jàmbat. ay nit ñu leen nax ci ay sëriñ lekk seen alal. te sëñ bi àq dafa sew. te doomu adama yi dañuy nekk ci àll bi surtout ñu nekk bitim réew feneen. sëñ bi liggéey seen alal sonn ci lool. Oh. am ay jafe-jafe. sëñ bi nga wax génn ci écran bi wax ñu gis sa kanam nga jàpp ne li ngay wax dëgg la. Oh. ñu yëkkat seen alal jox la ko am na ñoo xam bu ñu jëlee seen alal keroog lañ leen di noppee dégg. wala buñ leen waxee ba noppi lañ leen di wax lañ leen di wax lépp dara du ci dëgg kon nit ki la ma leen waxoon ne leen doomu aadama mënuma man nit dina ñëw ñaan la ma dara mënu ko loolu mënuma ci dara mm-hmm. ndax man lépp yàlla rek ko def dëgg la waaye damay bëgg maanaam doomu aadama yi nga xam ne leen jàpp gis nga doomu aadama bul profité ci ci ci ci ci ci jafe-jafe nit mm-hmm. ngir lijjanti say jafe-jafe bopp mm-hmm. sëñ bi waxoon naa leen ko gis nga seebre nee na woon tappale ñetti fan la bi nga koy defee bi nga koy xamee ak ñëpp di bàyyee nit ki lépp loo mënul leen mënuma mhm. waaye maa ngi massaw surtout suñu mbokki mudu mudu yi maa ngi leen di massaw ndax tukki metti na lool ñi ne déeta waaye nga am fa ay jafe-jafe ñi ne waaye ñi ngay tuddee sëriñ fii ci dëkk bi nga am ci ñoom yaakaar yónnee leen seen àll mhm. ñi lekk ko bu nopp mënatoo leen a jot mhm. kon ñu ngi leen di massaw ak ñi nekk ci biir réew mi ñu demee ne ñoom ndax ñu ko fiy jàmbat bari na lool waaye ñu ngi leen di massaw te leen wax na leen ab denc la lu mu yàgg yàgg yàgg dinañ ci jot ndax doomu aadama boo ko lekkalee li toll ne tàndarma wala lu ko gën a yées sax bu ëllëgee man xam ne la ko fay kon lu mu ci mën a doon bu leen ko fay fii fa leen ko fay feneen soxla maa ngi sant réew mépp di gërëm ñëpp te wax ne wax ji lu ci jub suñ borom ndax ab jaam laa buy taalibe yëpp suñ Tuubaa tey sàkku ñëpp ñaanal ma ngërëmal suñ Tuubaa lu sax dàkk jërëjëf ci loolu lañuy jar rek ñaanal ko jàmm ñaanal ko askan wi te xam ne jàmmam mooy jàmmi askan wi jàmmam mooy jàmmi ñu bari ñu ko yaakaar jox leen dig daje ëllëg ci seen yeneen i émission jërë ngeen jëf